Fallou Mbacke bu Sundumbe daa ma Mati Ñeng asalaamaaleykum waa jaariyéemu ñoo leen di wax déwén ñoo leen di ñaanal déwénati leen ci doole sëñ Fall di leen nuyu di leen ñaanal jàmm barke xéewal aju faju te ñaan ñu téye ko déwén bare bare bare bare kenn bañ a manqué ci doole sëñ Fallu di nuyu njiiti diine yi njiiti aada yi di ko tàmbalee ci sëñ Muntaxa ba si borom dëkk na yërmande soxna Baali Muntaxa soxna Dama Mbacke Fadul yaay sëñ Moussa Mbacke ak waaye daare Kamir gépp bàyyi suñu sëñ Mata Diop tafsir maam Mbaye Ngira sëñ Moussa Silma Sarr Baye laa si si ñàkk caaxaan borom daara ji di nuyu waa daare Kamir gépp te leen ñaanal jàmm barke xéwlaa ji faju suñu abi Mbàkke suñ muuru kenn Mbàkke nu siyaar borom dër bi te am ñëw soxna Fati borom Daaru Rahman Baye Mayasin Dia Sarr Cheikh Ndiaye Mayasin Abdou Jatu Konji ak Ibrahima Ndiaye Absa leen ñaanal jàmm barke xéwlaa ji faju ak jili Kanji doom day dañoo dégmal di si yërmande maanaam muy tabaski te bu ñu seetloo tabaski bi saa bi jubsee diggante yu bare bare bare ñooy yàqu ñaareel bi bu ñu seetloo tabaski bu weesoo am na ñuy toog ba bis ba bis bay di ci yor bori jàmbur di làqatoo ka nëbbut ndax bor ndax benn bis ndax benn waxtu te ndeysaan booy xool saabu tabaski jub see mbaa korite jub diggante yu bare bare bare bare dana yàqu ndax bëgg-bëggu bakkan rawatina ci jigéen ñi Baay Faal lu jigéen jigéen la kon ndey la sutura ak teral moo ca war waaye yedd daan na gën yërëm jigéenu yërëmaa da ci néegu séyam bokkut ak taaru jongama des koy jàng ca nan lay yare kon jigéen ndey ja jongama moo jur takkaay ak xewen yi noppal bàyyi doole la yëmut moo jur toppandoo say xarit ak say àndandoo ci takkaay yi ak col gi moytul toppandoo daf lay sonal doole la yemul boo tege ba naan doo tabaskee xar mu ñuul mbaa doo tabaskee xarum pël-pël mbaa doo tabaskee xar mu gàtt xanaa ndigal taxulaa jóg eh, jongama tabaski bii dafa am lu ko jiitu tabaski am na lu ko jiitu dañ laa fekk sa kër waajuru jël la fa indi la ba nga yegg see ci kër gi rek ndigal rek moo la war jongama bañ la fekkee ca kanamu ndey ak baay jël la fa indi la ci kër gi ba nga egsee topp ndigal dawi tere rek moo la war jongama ba ñëwee jël la kër ndey ak ba yóbbu la ca kër ga boo feegee leen rek moo la war toppi ndigal daw ay tere sàkku ngërëm ngir njaboot gi ngi ciy sàkku jongoma bu la kenn nax ngërëm kenn du ko mayee ngërëm suñu borom du ko mayee boo buggee loo jur mu barkeel soo buggee loo jur mu barkeel muñal mandul boolu ko yërmande ci su néegu sëy ba liggéey doom rek a jariñoo démb ñoom maam dañ daan wax naan démb ñoom maam dañ daan wax naan démb ñoom maam daan toog ci xorom ba suukar fekk leen fa ama jeegu mbeng nga fàppende démb ñoom maam dañ daan toog ci xorom ba suukar fekk leen fa tey nee nga yow jigéen da ngay sëy yaa ngay toog ci suukar si di jëfandikoo suukar si am suukar si mënta am dama limaam Jóob Samba li bay. sëy boo gis na tonga ja sëy boo gis na tonga ja néew nu aw say lañu wax say sayu mat yi ci buntu kër gi sayu mat ci ëtt bi ak sayu mat yi ci biir néeg bi kenn newu la sëy aw say lañ la wax bu ci ne war ngaa wàccoog moom nangu ci biir néeg bi nangu ci digg kër gi nangu ci mbedd mi say yaa ngoogu te neexul de xanaa doomu aadama kenn mucc mënta mucc ci làmmiñam waaye yow mi ñëw ngir sëy jëm caa mucc nangul loolu la waaye def xoolal ko sub sëriñal mi la fi indi jigéen noonu lay toogee jongama doole yëmbut mooy tuub toppandoog takkaay yi noppal bàyyi doole day yëmbut soo buggee loo jur mu barkeel dama limaamu Diop Samba soo buggee loo jur mu barkeel muñal maandool bal ko yërmaande ci sa néegu sëy boo liggéey doom rek kay jariñoo démb ñoo maam dañ naan toog ci xorom ba suukar fekk leen fa ndeysaan am na ñu bañul am na ñoo xam ne xamuñu ndax gisuñu ko leen xamal tabaski suñ borom da cee bëgg a wax ak ñun ñun doomu aadama tabaski gii ngay gis suñ borom dañu fi bëgg a wax ak ñun ñun doomu aadama donte yërmande kon ñun góor ñi la ñuy rey par tabaski ñun góor ñi la ñuy rey ci tabaski waaye suñ borom dafa borom yërmande moom la yonent bu ñuy wax Ibrahima moom doom ju góor ju wax Ismaïla. yonent bi daf daan ñaan am njaboot mi dem bi mu demee ba màggat lool nag yàlla may ko doom ju mu sant ko suñu borom bu baax a baax doom jugóor góor dem di màgg di màgg di màgg baxaw a dëgër ci ndigal suñu borom ni ko sa doom ji bi di ñëw bu tabaski jotee na ko na ko rendi saraxee ko suñu borom ni ko sa dom ji am bu tabaski jotee jote nang ko rendi saraxe ko yonent bi ñëw woow yaayu xale bi wax ko ko saarata munu ko mën aw ma ndigal ya ya ma yilif yilif sa dom ji comme ko suñu borom neena nga ray ko te ndigal la defal la yàlla wax kon xam nga soxna si nangu na ndigalu sëriñam papa ci woo doom ji ni ko du càggan daf ma neex suñu borom moom ma ko sant su borom nee na naa la rey def la tabaski doom doom ni ni ko bàyyi man aw ma lu ma dogal ci man yaay sama bàyyi di sama kilifa comme que suñu boom nee na nga rey ma ñu tabaskee ma ndigal la def ko maa ngi nii man aw ma lu may bañ ndigal suñ borom la bàyyi jël ma nga tabaskee ma kon xam nga doom ji nangu na bàyyi fàllu lii moo waral tabaski toppi daw tere sàkku ngërëm toogi ndigal loolu mooy noflaayu doomu adama suñ borom ñett yooyu la ñu bëggoon jigéen ji nangul na sëriñam doom ji nangul na baayam baay bi nangul na suñu boroom ñett ñi leen suñu borom bëggoon ci tabaski waaye bis boobu di bisu yërmande bis boobu di bisu jéggalante bis boobu di bisu balante ax yow ngay jigéen ne nga sàkku ngërëm moo la tax a jóge sa kër waajur ñëw fii sëy si yow ngay jigéen jéemoo sàkku bis boobu noo jëkkalul sa sa jëkkër ji jéemoo sàkku nooy bëggale sa jëkkër ji bis boobee waaye yaa ngi xinte woo takkaay jesner or ngir toppandoo yaa ngi sonal sa bopp sonal sëb ndax doole yi bokkunu Baay Fallu bu ñëpp tolla woon xam-xam bu ñëpp tolla woon am-am bu ñëpp tolla la woon mën-mën kon natu doon fii kumba mënuñoo tolloole wute na ko fa yàlla la waaye nu ànd sanantee te yàlla tax jullit du fayantoo jongama moytu toppandoo moytu toppandoo xewin yeeg takkaay yi yaa ngi sono sa bopp sono sab sëriñ te doo fa am ngërëm bisu yërmaane bu ko weccoog bisu puukare tabaski loolu tax koo jóg du col gu rafet du takki or ndigalu suñu boroom la yow la la war a yow jonga ma mooy am sa ngërëmal sa sëriñ la la war a jonga mooy sa bis boobu nga jéggalu sa jëkkër yow la la war a soxla si mooy bis boobee nga jéem a toog sa jëkkër waxtaan ak moom jéggalu ko ci loo ko daan def loolu daan yëkkati xolam loolu moo la may ngërëm waaye di histoire sa jëkkër ndax or wala jesneer wala bis benn bis benn waxtu nga yàq ci sa sëy xulo ci say goro xulo ci ak say sëriñ xuloo ci sa ak sa njëkke jaru ko ngërëm kenn ko maye jigéen déggin la kon ndey la sutural ak teral moo ca war waaye yedd daan na gën yërëm jong ma soo bëggee loo jur mu barkeel soo buggee loo jur mu barkeel muñal mandul bool ko yërmande ci sa néegu sëy ba liggéey doom rek a jariñoo liggéeyu ndey añub doom liggéeyu ndey ba añub doom bi jonga ma liggéeyal sa doom liggéeyal sa doom mooy noppal sa sëriñ liggéeyal sa doom ëllëg mooy suturaal sa sëriñ liggéeyal sa doom ëllëg mooy wormaal sa sëriñ poo laa sëy si po taxulaa jóge sa kër ngërëm moo la si ngir sakku ngërëm suñu borom du ko ngërëm suñu borom daa ko maye démb ñoom maam dañ daan toog ci xorom ba suukar fekk leen bisu tabaski du bisu xëccoo du bisu xiiroo waaye bisu jéggalante la ak baalante ak xalaat ak muñalante tey ñaa ñu tey ko déwén bare bare bare bare kenn bañ a manqué ah suma technicien yi ngi ma wax naa ni waxtu jot na nag ak ci nekkoon ci teg mi suma xarit suma sëriñ suma doom day Fallou di nuyu aussi Mopro ak euh, Cheikh Bambey di nuyu suma jigéen na xaar ngoom suma séeréer bi euh, ndeysaan euh, la la yàlla may lam tuuti tuuti jël nga ko indi sa dëkk ñu naan la kër gi ngoom juumuloo ndax dañ ni bu dee tey ñett ñaari ci biir kër gi ñu ni mbedd mi lu mu neex neex neex su guddee da ngay muy wax ju dëggu nit ki am lu dul këram ana yërmaande ci biti biir kër da jooy sama man ama jeegu mbeng fa penda càmmiñal ma penda ana yërmaande ci biti biir kër da jooy sama man ngërëm lii ci mbedd mi boo ko jundee waa kër gi jum nga mbedd mi lu neex neex neex su guddee da ngay tëddi jërëjëfe biiju xaar ngoom baram jee ñi ñaan taxawaay bi yàgg lool ah dee nuyu leen ziyaar nag te leen xamal ni nag yi euh, ngi nii avec un grand renouveau DFTV bu bees ngi nii tax tax tax bala nga wuti feneen nag day nay fekk dëkk tëggul jigéen la di xaar xaar ngoom di bool bool mënoon naa toog ma ko Ndakaaru mbaa feneen waaye dafa jël la ma yoram lu mu tuuti indi ko fii muy suñ teraanga ñor ko sàmmal suñu bopp ndaa ma lépp loo yuru karam doo jëfeexul nan xam lii nu am xam lii moom sàmmale ko ki ñu ko indil dina xam ne xamal ni nag li ki new ci micro mooy seen xarit seen doom day di di faama jóg bëgg fallu soppe way daaree kamir di taalibe si Mourou Kane Mbacke ibnu Chab borom dër bi di nuyu yaa Coro Sarr nag yaay Muntaga Seen ak Basir Seen suñu ambassadeur bi ak waa Mbengen gépp VMB nga Malick ak euh, Mahamadou di nuyu suma waa ji Jules Soumaré docteur euh, Bouroum Ngalam di ko ñaanal jàmm ak barke xéwal fàttewu ma sam bàjjen ak euh, bàjjen Mbengue Ndiaye Diop ca Mbour yaay Omar Mbengue ak dabalimaamu Bijou Ndiaye dabalimaamu Diop mu faama Abdou Gueye di nuyu waa Fusil gépp Cheikh Ndiaye Mayacine El Hadj Cheikh Ndiaye Mayacine daam sekk euh, daam màgget Mbàkke Jibi Ndiaye Abdou Diatou Ndiaye ak euh, Diouf Lambaye ak Aline Diop Aïda Thioub ngay ak Ngouda di wax VFtv euh, ngi nii di seet ci seen dëkk lu ngeen soxla yite bu ngeen ci am ngeen egsi fii ci làmb ji fekk fi taranga di leen ñaanal jàmm barke xéwal yéen ñëpp di leen wax déwéniti leen di leen fàttali leen rek jigéen jéggin la kon ndey la sutural ak teral moo ca war waaye yedd daan na gën yërëm démb ñoom dañ naan toog ci xorom ba suukar fekk leen soo buggee loo jur mu barkeel muñal mandul bool ko gërmaande ci sa néegu sëy jongama ba liggéey doom rek a jariñoo liggéeyu ndey añub doom liggéeyu ndey añub doom déwénati leen waa ndeysaan nag kon di leen tàggu nag tey nuyu sama waa ji nag Abbas Jong maan Jong Fara Ndiaye Ridwan Dieng ak le procureur Cheikh Faye Ousseynou Fall Iya ak Modou Sène di leen xamal ki ngeen fii nag moo di Samba Gueye di borom daara menam broderie Escale en face Sonatel ak soxnaam Mbaye nga wàcc Samba Gueye eggi door ñu lay ziar barke xéwla aju fajo ci doole sëñ maa ngi Fara Ndiaye Abbas voilà